mais gisuma kenen ko xamni ni voilà même ci opposition bi sax gisuma ko ci taxaw ko xamni wa waaw mën nañu wax ni ki mën nañ Sonko dafa man chef de quartier Sonko dafa mën jité kër Sonko lu wax du deug Sonko lan la mës wax lu nek deug Sénégal. mais moo jël 3e am 15 pour cent. waaw d' accord di wax lu dul deug ñi ñak bop di la gëm ngay wax lu dul deug ñi ñak bop di la gëm di saga di ñi ñaan diw sacc la lañ ko doon def dafa yomb mais bo xolé période bi kotam dafa wacc Sonko du wax deug Sonko lu mu mës a wax bu ne bu ma procureur waaye bu ñu ko procureur waaye mu ne dew ma fu mu wax rek lu mu wax rek. ni na ma waaye yow bàyyi ma Sonko buzz lay wut xam na Sonko lan la bëgg. Sonko bëggul nekk président bëggul nekk chef de quartier bëggul nekk ministre député la bëgg nekk am euh, kiiraay di wax lu ko neex ci bi di wut buzz moom chaque jour na ngeen ci internet bi rek moom loolu moo ko intéressé Sonko promotion lay wut de moom artistes yi di génn ay clip ak yooyu ñooy moom clipam mooy buzz yi nu muy def noonu. Sonko mënul yor karce